وبطاها حسبي بشيخ تجاني gis nga salaatul fatiha benn la waaye am na xaqiqa salaatul fatiha benn la ñëpp ñu ngi jàng ci allahuma salli ala sayyidina muhammad il fatiha lima uxliq ba ca xaq qadrihi wa miqdaarihi al azim mais am na xaqiqa di ngay jàng di utiliser cuvette bi nga xam ni ci la lumière u bi nekk mais gis nga crème bi Cheikh ci ay loxo la koy teg crème bi lay teg ci ay loxo moo tax nga dégg léeg mag ñi ci seen tooñ yooyu nga xam ni dafa daan dellu ci formation spirituelle nga ni leen maa ngi zikr salaatul fatiha ñu ni la waaye ndax yaa ngi zikr xaqiqa bi nga ni dafa am xaqiqa ñu ni la waaw nga ne xanaa secret la bu ñuy dugal ak ay turu yàlla ñu ne la déedéet nii nga koy jàng ni keneen di ko jàng keneen ki mën na jàng xaqiqa bi yow nga jàng shahada bi te yena yam di ngeen jàng boobu crème bi lañ doon wax crème bi mooy def nit xalifa Cheikh Tijani Chérif loolu mooy crème bi mooy bi Cheikh jëli ci digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu daan jàng moom ci làmmiñam bu tedd bi mooy xaqiqa bi boobu bennam doon la mu représenté ci yiw kenn xamul na mu doon bennam na mu mën a yóbbu rox ci dimension yu kenn mënul àgg waaye bennam na mu mën a tijji xol ba dugal ci leeru yonent bi leer goo xam ni néew nañu ko àttan lu koy jox nit mooy sopp wasila loolu tax Serigne Babacar si jiital cofeel ci Cheikh Tijani Chérif Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima ñas wax ni dem naa bay laaj ndax di tagg Cheikh Tijani Chérif ak di lazim bu ma ci war def ci ñaari ndax sopp gi ma ko sopp Cheikh Abba Sall dem bay wax ni Mawlaay Cheikh Ahmadou Tijani Chérif dafa mel ni ci man ku gis jant nga xam ni mënatul seen bëddéew ndax jeex ci du ko kon mag ñi dañ daan cultiver cofeel ci Cheikh Tijani Chérif léegi nag li ñu jublu ci loolu